président des assises nationales tamit ci wàllub njàng mi àdduna ci fekk waa mouvement Y'en a marre tamit yittewoo loolu atum njàng mi nu mu nar a mel ci Sénégal nar a jëm ci année blanche ndaxte ñoom tamit ci benn jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi bi ñu doon amal ci bis bi junj nañ ni daal ne daañ ko ci waxtaanee ñoom nag ci seen chantier yi ñu duppee les chantiers NTS moom la ñu doon nag fësal ci ngoonub tey ba loolu wéyee ci ay xibaar wàllu paj mi personnelu poste de Baba Gadji ñoom nag ñu ngi mobilisé wu ngir nag lépp li nga xamante ni moo di jëlee eh, bilharziose ca foofee xamante ni moo di seen communauté rurale ndaxte jàngoro ji nag moom eh, feeñaat na fa te am na ay ndaw yoo xamante ni tamit ba léegi eh, jàngoro ji saa yu leen yootee leen leeral yi ak suñu nattaango Bokar Kanté personnel bu poste de santé bu Bagadaji di dëkk bu nekk ci kaw route nationale numéro te diggante am ak Kolda tollu ci fanweer dañu jóg taxaw tembe li ko waral nag mooy feebar bu ñu duppee bilharziose mooy law ci biir communauté rural bi. ndax dafa am xale yi doon ñëw di saw deret wala bu ñu demee douche mu am deret léegi bi ñu joxee rapport yooyu district ñoom tamit wàcc nañu def ay prélèvement mais bi ñu defee prélèvement yi yooyu dafa positif. bilharziose nag dafa nekk feebar boo xam ne ay vers parasite ñoo koy joxee ñu ngi koy amee nag gannaaw bi nga xamee ne nag parasite yooyu bàyyi nañu ay larve ci biir ndox mi ci rivière yi. ci ndox bi ni mel nag su fi nit duggee mën a jëlee bilharziose ñu gis ne kon xale yi ñoo gën a vulnérable ci feebar bi lee ndax foo bu ñuy foo ci ndox mi su suñuy feey parasite yooyu nekk responsable de la bilharziose ci biir déretu nit kii lay dund muy lu mën a jural ku feebar kii lorange bu rëy. conséquences yi mën na dem ba indi ay laago. mën na dem ba nit ki indil ko problème pour affaire jur du mën a jur doom wala yooyu xale bi tamit mën na dem ba du am xel ci jàng bi ak yooyu yëpp. moo waral nag ñu taxaw tembe gannaawu campagne de déparasitage bi visé école élémentaire ak dara yu nekk ci gox bi yëpp jàngalekat yi ñoom it te tàggat nañ leen ci naka la ñuy fagaru ci feebar bi waaye ci loolu nag set setal toilette yi moo doon jafe-jafe. gouvernement bu fi nekkoon dafa demoon ba supprimer luy. inscription ci école élémentaire donc ñun daal maanaam amuñu budget de fonctionnement amuñu dara même pour ñu am ay bale pour nettoyer classe yi il faut ñu jënd wala élèves yi seen bopp ñu cotiser te élève boo laajte cotisation fu mu ne nii papam wala yaayam moo koy ne ñun vraiment waruñu cotiser parce que ministre bi moo ko wax. pourtant ci gox bi ay ONG dañuy dérouler ay projet ci wàllu set setalu école yi waaye ban njëriñ la projet yooyu am mooy laaj bi. ndax nekkinu duus yi wanewu ko